bàyyi nañ bëre yii mbër moom bu bëreetul rek du mbër bàyyi nañ bëre yow kañ nga gëj a bëre. daanaka trois ans ngi ni bëre ma dul combat Modou Lo la dëgër. waaw si laa gëj a bëre daan nga daan mu leer nañ ba léegi mu ngi jooy. nu tudd. Ronaldo ñu ni ngay laaj. Ronaldo ba oh. bi nga daanoon Boy Faye est ce que mënati ko ci boobu mënatoo ko. lenn laa lay wax de. yaa too fi mu nekk nii. teel teel a waalo gën aay. waaw benn benn combat moo gën a naqari sama àdduna. bu fay woon bàyyi bëri sa muy maa tigoo remas. waaw combat moom moo ma fay woon rek baax na. dama daan bungal yëpp. dama daan bungal yëpp. ma ñëw tigoo nax ma quoi daan ma mais sama combat maa dumbul laa bëgg ngeen tegal ma ko ma gis ko si net bi quoi. waaw. dumbul buy lim ay defetam du si boole. waaw dumbul yaa ngi doon seen maa ngi fii yow laa waxal kaañoo fii nag combat bi teg ka. ah dumbul. dama ko jàpp woon daal ko nii. dama ko jàpp woon daal ko. xam naa nag. yaakaar naa yow dumbul booy fay ak dumbul booy fay à ah, douze ma de douze ngi ne taxaw waaw bilaay ay bëre ay punkare laa daan lamb dañ laa nam kaay ñaaxal lamba ji tànn bi moo bari quoi ay mbër mi moo ma neex mooy bëre moo am si lamba ji mais lamba waxul dëgg gars yi nañu wax dëgg ji jox mbër yi ñu bëre lamba waxul dëgg bu lamba waxoon dëgg barki alxuraani karim laa lay waatal champion yi bari laa rek yow. nu mu waaye sant yàlla rek sant yàlla bu baax. waaw dara ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yoon bi sant suñu ñaari waajur. waaw di sant suñu entraîneur bu baax ku su ma ni performant ah laay boxeur ah Idi xam nga ah grand Cheikh Mbaye comprendre di sant sama ah Babou Kalle di ga sant bu baax di sant suma staff bépp ñi nga xamante ne nii ñoo may jàppale ak ah, sumay supporteurs yëpp di sant waa Tëngéej bu baax di sant mbëri Tëngéej yëpp comprendre nga waaw di wax sunu booy yi indi fii sunu borom yàlla nañ am may ndam. ndeysaan loolu am na solo mais bi ngay mujj arène nationale sa diggante ak soq la nga ñàkk. ñu bari ne xàmmewuñu gàmmu gay gisuñu woon gàmmu gay lan la. non combat boobu noonu. noonu la mënoon a demee. lu waaw li ma waroon lépp def naa ko. entraîné naa ba bay bëgg a dee. xam nga ñaari at may préparé combat bi. entraîné naa bay bëgg a dee sunu borom moom la namoon may kandam ndam may na kandam xam nga di ko ñaan yàlla ko di man di ñaan man sama boppa moo amaatee combat yàlla na ma yàlla may ndam. ñu ngi may proposé ay RBC. waaw ñu ngi may proposé ay combat chaque jour promoteur ma man aw ma problème combat ba mu fees. loolu moom dëgg la. comprendre nga aw ma problème combat am. yan adversaire nga bëgg. ñi nga xamante ne làmb boole nañ ci ñu war a bëri rek. bu ñu Eumeu buñ ma ko joxee ma bëree moom na ñaari xale yi daan buur siin waaw daan kalmandu waaw yow nga ëma seen bopp ndax xam nga mbëri bokkuñu mbëri bokkuñu yow xam nga ne mbëri bokkuñu waaw mbëri bokkuñu ëma seen ñëw buñ ma ko joxee ma bëree moom Angleterre bu dóor dóoraat barki démb damaa dem jëli ko mu ne dalaa bëgg a may sens est-ce que mën na Angleterre Angleterre man xaw ma Angleterre de déedéet siwul kenn xaw billaa xaw ma ah, xaw ma Angleterre sa grand nee na yàq béy guy gi sëgg si béy guy gi ñi nga ñu ma ñemewu la. billaahi ñi ma ñu ma gi bu ma jëlee ma duma ko ba mu rek la daan ka. mbéy gi mu bool. Eh, mbéy gu gi ñi ma ka dama nga seeti ka. gaynde mer la fanaanoo. gaynde mer la fanaanoo. ragee gi ñi bu ma jëlee ma dóor ka daan ka. incha na ma jël dama nga seeti ka. waaw. incha allah jox nañ nga ko mu di ko delloo léegi ñor na nga ñëw nga ñëw ñu bëre. buñ la fay nga jot. soxlaa ma sax xaalis. nañ ma ko jox ay billets xam ne man bëgg naa bëre. waaw di entraînement chaque jour. waaw di sant suñu entraîneur bi tamit Babou Kalle. waaw Youssou Ndour a ngi jëlal Youssou Ndour. Youssou ma ñëw ci yow. Lirou loo koy wax loo sama rakk la sama xarit la. kii grand champion la. nee naa ko soo entraîné kenn mënu la. parce que Cheikh Ahmadou Bamba dafa gëm boppam am sañ-sañ. yàlla na ko yàlla jàppale suñu rakk sunu suñu xarit la ndax dafa bëgg sama rakk ci Balla Gaye bëree ko ak géej waay kan non fa day na fa kii loolu day yàq non non non kii géej waay la yaroo màggee fa bëgg Balla Gaye ba jeex takk waa Balla Gaye bëgg ko ak ñu ma ne ay saytaan rek ngeen bëriwul ak waa géej waay saytaan mi aliru dégg nga ko bu ma fekk yamala fa ci loo nekk maa ngi nii maa ngi sant bu wér Serigne Ndiaye nee na ko daw man man nga ne man man ragal mu bi kañ si adversaire bi la. adversaire ah si promoteur bi la du si man parce que promoteur tamit mënoo tëgg lamb ba pare da ngaa corona fu mu am. waaw. lan moo corona. waa bi. ma dafa am corona. ma ne ko ku am nu muy tëggee làmba moom moo renvoyé combat bi waaye du ñun de. mais Serigne Ndiaye na dañ la ko tëggal jàppal leen dara nga ne ko tabaski bi daa jege du ma bëri. non non loolu mënul nekk suba ba la tabaski de deux jours combat mën na see am kan mooy ñëw stade amateurs yi ñëw stade yëpp dëkkuñu fi àll ba lañ dëkk te duñu tabaski ji loolu mënul nekk sax. waxante dëgg. ni mu def Cobra gis nga. lijjantiwuma loolu Cobra man maa ko daan ay secondes. moom daan bi mu daan Kobara man loolu sonalu ma def bàyyi ma sax xel. parce que man Kobara ni mu def noonu Kobara def naa ko Kobara daan daan Kobara jël bu gaaw. loolu seet soo léegi jox la avance Serigne Ndiaye dégg na yàgg na. ma joxee avance am ma moom. pare naa pour bëreex moom lu may daw Serigne Ndiaye xanaa nit. lala ma ëpp. kon jéem a. dara du ma fa bëreex kenn. foofu laa sama keppaar la. ndam rek laa leen di ñaanal. du yàq lamb. non du yàq yaa man mu yàqee lamb. kuy wàllu yaan sa dëkk tëggul. ñibbi nga war ngaa mën a bëree. non non non non foofu foofu dama fa bokk mënu ma fa bëree kenn. Hmm. bilaay samay xarit lañ. jaajëf